c'est le président Abdoulaye Mamoudou Guissé, euh, président de l'Observatoire de la musique et des arts du Sénégal, Omar Sénégal, euh, conseiller du président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Président Abdoulaye Daoud Diallo, et également secrétaire général national du parti politique Foula ak euh, autrement dit le mouvement culturel pour le salut du Sénégal. Donc, euh, nous sommes aujourd'hui à Pékin pour la deuxième fois Parce que pour rappel, on a tenu le décembre à Pékin lors d'un meeting euh, Sargal le président Macky Sall, un meeting qui a réuni plus de 3000 personnes euh, dans l'avenue euh, euh de l'arène nationale à Pékin. Donc nous, avons, nous avions euh, procédé à l'inscription de 3000 artistes euh, venus de, de, tous les coins du Sénégal. Et après, nous nous, sommes rendus à, à Refisque avec euh, euh, l'association des comédiens dirigée par Tan Bombay. Donc, euh, nous avons aussi là-bas inscrit plus de, 5 000, de, de, plus de 500 artistes, comédiens, musiciens. Maintenant, euh, la demande étant très forte dans la banlieue de Pékin et de Guédiawaye, nous sommes dans l'obligation de faire un demi-tour, de revenir à Pékin, euh, mais aussi euh, pour, non seulement pour inscrire d'autres artistes, Euh, pour les logements sociaux, mais également pour installer Soma Nyan, euh, qui vient d'être euh, nommé deuxième vice-président du mouvement culturel pour le salut du Sénégal, Foulak Faïda, le parti dont je dirige, mais également le chargé des programmes de la culture poulard. Donc, c'est avec plaisir, donc c'est avec plaisir euh, que nous sommes ici dans ce complexe Léopold Sédar Senghor un complexe culturel. faire de telle sorte que tous les artistes euh, de, du Sénégal puissent quand même s'inscrire. Mais aujourd'hui, la particularité, <laughs> notre grand Idriss Diop est là, que nous avons attendu, mais je pense qu'avec la circulation, c'est normal et c'était prévisible. C'est exactement ça. Donc, euh, les artistes aujourd'hui qui se sont réunis sous l'impulsion généreuse de Soma Nyan, qui est un acteur culturel de premier plan, mais aussi qui a fait ses preuves avec son grand mouvement qui le plan national international, qui regroupe plus de 47 000 membres au niveau du Sénégal. Donc, Soma, Soma Nyan est une valeur sûre de la culture poulard, mais également un avec qui président de la République, Macky Sall, compte beaucoup, parce qu'il incarne l'avenir de la culture poulard. ce n'est pas quelqu'un qui est à négliger parce que tout simplement, s'il a eu euh, quand même le choix, ce choix de venir euh, rejoindre notre parti, le mouvement culturel pour le salut du Sénégal, dont Idriss Diop est le vice-président, euh, et en même temps le président du conseil scientifique de l'Observatoire de la musique et des arts du Sénégal. Donc je dis que Somagnan n'a fait que euh, le choix qu'il fallait, c'est-à-dire que le choix de la culture. Et on sait que la culture est, est, au début et à la fin de tout développement, mais également la culture a besoin de combattants euh, euh, qui se battent pour restaurer la dignité des créateurs. Parce qu'aujourd'hui au Sénégal, on sait que les, les artistes souffrent, les créateurs souffrent, le mal est là, et que les politiques menées jusqu'ici, avec la vision claire et transparente, avec tous les moyens que le président de la République, Macky Sall, a mis au service de la culture. Mais voilà que le constat est là, c'est un échec total parce qu'il n'y a pas de, de, de, de personnalité forte qui, qui, puisse traduire en acte la vision du président de la République Macky Sall. Aujourd'hui, ce que le président veut, c'est que c'est ce que Sonia a fait, c'est-à-dire inscrire plus de 4000 euh, artistes musiciens venus de la, du Fouta et, dans, et de la diaspora. Aujourd'hui, dans ce complexe Léopold Sédar Senghor, il y a plus de 3 000, 4 000 artistes halpolars, tous des halpolars. Et moi-même, j'ai des problèmes à communiquer avec eux parce qu'ils ne parlent que polar. Donc, ils se sont déplacés du Fouta pour venir ici répondre à l'appel du doyen Idrissa Diop, le musicien international que personne ne présente, qui, qui a aussi fait le choix de venir épauler la nouvelle génération parce que lui, il a tout. Hein. Il a réussi sa vie grâce à, la, à sa musique, il a des châteaux, il a tout. Mais nous, on n'a pas encore. Les, cette nouvelle génération n'a pas Donc, il, il s'est mis au service de cette nouvelle génération, Poulard, Serer, Djola, euh, euh, de toute ethnie, tout toutes les ethnies confondues, aujourd'hui sont, sont aujourd'hui ici dans, ce, cet centre de la culture, à savoir le complexe Léopold Sédar Senghor, qui est historique. Donc, Soma, au nom du bureau de, du parti politique Fulak Faïda, mhm. au nom du vice-président, du premier vice-président Idriss Diop, euh, nous vous installons officiellement comme trois, deuxième vice-président du mouvement culturel pour le salut du Sénégal, mais aussi le chargé des programmes de la culture polar. Parce que, il faut le noter, c'est un expert dans la culture polar. Aujourd'hui, le nombre d'artistes qui sont là, Idrissa, si vous le voyez, euh, vous dites chapeau la culture polaire ici. le centre culturel Léopold Salar Senghor très petit, très exécutif pour rassembler tout tout ce beau monde qui est là pour dire merci au président de la République qui nous a donné 417 au niveau de Dias et ensuite euh, 418 euh, hectares au niveau de, de Kayar pour que ces logements sociaux soient une réalité et que les contrats sont signés avec les partenaires et bailleurs de fonds. Maintenant, il ne reste qu'à concrétiser et que bientôt, les, chaque artiste aura une maison de 300 mètres carrés avec toutes les, toutes les commodités qu'il qu faut. Mais aussi, il ne faut pas oublier que la presse, surtout les réseaux sociaux, les chaînes YouTube, ces jeunes-là qui sont dans la presse, qui sont dans les réseaux sociaux, aussi font partie de la culture. Donc, ils sont bénéficiaires. Donc, c'est pour cela qu'ils sont venus en masse s'inscrire. Donc, euh, je vous remercie. Je remercie toute la presse. Et Donc, euh, merci Soda. Soda, parce que Soda aussi et Equivox TV, qui sont des partenaires de Omar City. Euh, c'est une euh, euh chaîne de télévision qui soutient ces logements sociaux. et donc, je tiens à préciser aussi que Euh, dans le projet les les les les quatre-vingt-dix pour cent sont réservés aux artistes mais les dix pour cent aux couches démunies c'est-à-dire personnes aux personnes fragiles qui sont dans dans euh, dans dans dans le besoin d'avoir des toits des logements sociaux c'est pour cela que le président a trop insisté que dix pour cent là soient choisis d'une façon objective et c'est ce qu'on est en train les gens viennent et s'inscrivent donc voilà Idrissa salaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu ñu sant waa Pikine encore une deuxième fois di sant Sonia bu baax a baax baax Soma Sona ñaan andi loo xam ni tey wax dëgg yàlla moom lañ doon xaar ci kilifa gu day ni moom parce que xam nañ ne Fuuta liggéey na liggéey boo xam ne liggéey na fa liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la ñun ñu xam ko yàgg ko dégg yàgg ko xam ci jàppale bi muy jàppale président Macky Sall donc au nom de tous les acteurs culturels au nom de Abdoulaye de Diallo au nom du président Macky Sall ñu ngi lay gërëm ci sa présence di la gërëm aussi ci ni nga ñëwee rejoindre parti politique Fulla ak Fayda parce que loolu ak ak donc di leen gërëm yéen presse bi yëpp ni ngeen ñu jàppale aussi dinañ wax ne benn affaire moo am aussi lii du affaire u gént du affaire waxantu du affaire dara dëgg gu wër péng la signé nañu convention yëpp siñe nañ ko ba pare léegi tabax bi ci tabax yi nii lañu ñu toll pour jox ko acteur culturel u Sénégal yëpp ñu moomal ko seen bopp te comme ni ko président waxee tout à Abdoulaye Mamadou Guissé affaire yi diisul sax trop parce que ku xam artiste xam ne président Macky Sall buy joxe dara da koy joxale ak da koy joxe ak xol bu sedd guy ak yërmandem gi nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy euh, spécificité maanaam mag président Macky Sall ku baax la artiste yëpp ne président Macky Sall ku baax la ku am xol bu baax la te nii muy demee nii ne damay dem waaye naa fi bàyyil artistes yi loo xam ne dootuñu ko fàtte ba ba ñuy sangoo suuf donc loolu ñu ko ñu ko ciy remercier di la di la vraiment ci taxawaay bi ni nga taxawee tey encore une fois Pikine forever ñu ngi gërëm waa Pikine yëpp di leen sant vraiment nekk fii tey ci centre Léopold Sédar Senghor kooku c'est symbolique très symbolique à Pikine ñu taxaw gis fi mbooloo mi di inscrire ñëpp te loolu lépp Sénégal mooñu ko moo ñu ko jaral parce que ku xam Omart dama koy bamtuwaat tout le temps di ko wax pour ñëpp gën ko dégg ku xam Omart xam ne depuis la nuit des temps ji Ablaye Modou Guissé mii mi ngi ñafe Omart avant man may ñëw Omart mi koy xeex di ko ñafe ba tey ñu agsi ba tey ñu agsi fii Omart agsi fii ku xam rôle Omart ak spécificité wu Omart xam ne dafa xeex durant tout sa vie lui pour la cause des acteurs culturels moom bale muy wax xam nga li ma nawee Ablaye Mamadou Guissé mii tey ma wax leen ko ne yéen ñëpp ngeen xamee ko noonu chaque fois que bu ñuy wax musicien moom daf naan du musicien rek ñoo nekk ay artiste dafa am ay peintre am ay sculpteur am ay écrivain am ay poète ah am ay coiffeur am ay coiffeuse am ay ñu bari cuisinières yi cuisiniers yi ñoom ñëpp ay acteurs culturels te loolu moo tax ma naw ko photographe yi danseurs yi comédiens yi keroog bi ma ñëwee fii gis ñoom équipe bu Saneex ñu toog ak ñoom tan bon bombe ak ñoom Jojo ñëpp taxaw ak yeneen artistes acteurs culturels yëpp waa hip hop bi ñëw ñoom xuumaan xuumaan nekk fa fata nekk fa ak ñeneen ak ñeneen ñoom Djibi Dabrans ak ñeneen ak ñeneen ak ñoom Moussa Traoré ak Éric Senghor ñëpp ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu taxaw nga xam ni donc kii doomu ab bi moo Modou gisee gàcce gaalama parce que loolu rek moo tax ma ànd ak moom ba léegi loolu rek moo tax ma ànd dëggoom moo tax ma ànd ak moom pardon. inscription rek da ngay inscrire leeral lu xam nga dama leen du gétt ay inscription rek. ngay ku inscrire ñu xool. te amoo kër. ñu si. ñu ñu saytu ko parce que duñ ñëw joxe nii. dañ ko saytu man bi wax ak man maay PCA bi man. te ku xam ne man ku xam man Idrissa Diop xam ne man du ma waxantu. lépp loolu yoon lay ci fulak fayda laa jàppee kii te ci fulak fayda rek lañuy joxe les logements sociaux amul affaire par par loo amul yooyu. ah. non dëkk ba donc da ngay dëkk ba pare. commencé fay. te naa leen wax lenn aussi loo xam ne c'est important mooy courant bi. ndox mi c'est subventionné ndox mi c'est subventionné par les partenaires nga xam ne kooku kii ñu ko defal nag foog ñu gërëm ko mooy président Macky Sall ak Abdoulaye Daouda yàllu mais taccu leen ko yéen ñi ah, da koy tàccu waaw waaw loolu daal loolu moo fi ne ginnaaw loolu di gërëm di leen sant di gërëm nag sa suñu waa ji soo ma ñaan moom kii yàlla nañu ko yàlla sàmmal parce que gis nañu li muy liggéey fële ca Fouta donc bu ñëwee tey ba rejoindre ah, parti bi rejoindre Omart suñu ONG waa Fouta yëpp ñëw fii fanaan fi ay fan ay fani fan toog ba lii donc yaatal bi lañ doon ñaan yàlla yàlla ci ñun la ko jaarale mm. donc ñu ngi koy gërëme yàlla suñu borom dinañ ko dinañ ko sant yéen di leen gërëm yéen ñëpp waa Pikine yëpp léegi nag maa ngi jox parole bi suñu invité d'honneur bii muy deuxième vice président wu euh, euh, parti Fulla ak Fayda ak Omar ñu ngi léegi moom mooy chargé des programmes culture al pulaar soo maa ngi nii maa ngi koy jox parole bi mu yeggale ak yéen ah. jërë ngeen jëf waa forever kontaan nañu lool ci yéen. waaw non moom mooy jël pulaar waaw moom e yettorde ko weltade tan kadi huno fof ɗo saaha mum saaha o yonti allah addi kamɓe nder eh, mawniraɓam ɓe korsinnomi guila ko ɓooyi eh, allah waɗi kadi huno fof koye hoddiro jeyate hoddire moƴƴo e hoddire moƴƴo so ñantodiri ɗum ko allah woni mbeɗa euh, ƴetta président macky sall uh-huh. so tawi en mbi en jetti président macky hay goto wiyata en juumi saabu artiste aji euh, mi annda ɗi sénégal ɗi kam kono ɗo e sénégal ala artiste teddinaɗo ha heeɓi ɗum noon allah jarama onon fuutankoɓe onon pikinnaaɓe sa debbo sa gorko sa suka sa mawɗo emin ñaago allah tan ko fuɗɗa ko enen fof en tawtore woto men fof so tawi darima ɗo hannde ene ari e dow jikki o yo allah timmin jikki o allah timmini jikko kadi rewno ɗum e arsukaji men enen ɓe foof jettiren ɗum allah ɓeɗo ɗiɗo dariɓe ɗo kañum président de la république wonire président ablaye euh, ablaye dawde diallo ɓe ganduɗa kankone ko pulako tan e sénégal tan ɓendi mo en calmini noon umiɓe ha ƴella nan ɗo ko ene seega ñasen ko mawɗo oppuɗo haajuji mum en wonde ramata gueyi ɓeɗo mi wawasde haalde ɗumen ko heddi ko fof noon ko moral jiire mbaɗanmi goto foof yo wimi totti ɗum junngo ɗum galle ablaye sy en vraiment accama weltanimama nde ñumam nande hay wayde mo yi wonnoon mbeɗa anndi kono gonno hanki kadi onon goni hanni funeɓe fuuta ngari koye nde kuma diani ngari murtude en ngari kala mo ganduɗa ɓi nalanke tan taw ka nalanke malla ka ɓi nalanke kamɓe fof ngari ɓen ɗon hen goto fof oppi ko haaju mum wi nani ɗum ɗo kamin goppita ɗum caggal ɗum noon allah jarama on jarama omarta jarama pulak eh, fayde noon mbeɗa sikki ɗum ɗon ɗon jinmi artude ɓe bii kam ɓe mbaɗi kam vice président fulak fayda mais man dinaa ci yokk jom ak jom parce que boo amee fulla am fayda te jom newu ca boo moytu ñu faagaagal la parce que jom mooy mooy mooy tax ngay am ñaari xel xel ci kanam a xel ci ginnaaw nga nga am dignité sa bopp maanaam euh, fayda boobu jom moo koy moo koy maanaam am le cœur am engagement boo amul engagement doo mun def dara parce que boo amee fulla am fayda te amul engagement doo mun am dara tamit yaakaar naa jom tamit man man maa ci teg euh, jom bi mu nekk fulla ak fayda ak jom kon nag kontaan naa ci ñoom vraiment je ferai de tout mon mieux toutes mes possibilités li ma am ci connaissance ci Sénégal parce que le mouvement c'est un mariage du national et de l'international et ñu ñu am comme coordinateur dans toutes les régions ce sont des personnalités ay nit ñoo xam ne nit ñu tuuti lañu kon nag ñu on fera de notre mieux min mbat gueɗe amen fof min mbawa hollude o marta no wuuri fulla ak fayda no wuuri e kañum woni joom ɗum noon allah jarama jarama mi salmini presse ñetti yoon.